أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokki jullit yi mbokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant yàlla bu baax ci jataay bi bim nu mayee nu fekkewaat ko di ñaan yàlla subhaanahu wa taala kuréel gi nga xam ne ñooy taxawee jataay yu am solo yi mu defal leen ndimbal ak tawfeex ci daraje Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu wa arda ngir jëkkante ak waxtaan wi rek ni ko sëriñ Saalixu waxe dañuy wax ne li ñu war a waxtaane mooy xalaat ak mbir yi nga xam ne wares na caa xalaat ak jeexit yi xalaat di am ak ak i meññetam loolu lépp nag ñu balluloo ko ci mbindum sëriñ bi rawatina ci téereem bi bii di masaalikul jinaan mu am ci bunt boo xam ni wàllu xalaat rek ci la jëm xam ngeen ne xalaat xéewal la gu yàlla baaxee doomu adama ngir mu mën a xam boroomam ba mën koo jaamu ak it ngir mu mën a dundal suuf si ci kaw ak njub ak bëgg-bëggu suñu borom tabaraka wa taala muy loo xam ni doomu aadama kese mën nañ ne moo ko am wala boog anam gi ko doomu aadama amee beneen mbindeef fekku ko ca te doomu aadama itam ñëpp la ci yàlla yemale jox leen ko muy am xel ñuy xalaat xel mi di fekk am nga xel rek faw xel mi liggéey dund gi itam suñ ci génne woon xalaat dund gi ci moom day taxaw xalaat day lu mënta ñàkk ci ak dund foofu kon lañuy xamee soloom boroom xam-xam yi buñ koy teg dañuy wax mooy jëfandikoo xel ak jëfloo xel ci li nga xam ngir àgg ci la nga xamul loolu mooy gàttalu tekk bi muy liggéey boo xam ni xel da koy def sukkandiku ca la mu xamoon ngir settantal ca ballulu ca la mu xamul loolu mooy gàttal gi imaamul Ghazali ci al ixyaau ulumuddin dafa wax ne mooy ixdaaru macrifatayni fi l qalbi li yastafmira minhuma macrifatan thalitha mooy xol bi da nga ciy boole ñaari xam-xam yoo amoon ñaari xibaar yoo amoon ngir génnee ci beneen xibaaru ñetteel mu misaal ko ci ki nga xam ne adduna kese moo ko ñor su demee ba bëgg a xam ndax àllaaxira moo gën adduna ak ni àllaaxira gënee adduna ni mu koy xame mooy day njëkk a xam ne la gën a des la gën a yàgg loolee moo gën maanaam ñaari dund su fekkee fii da nga fiy dund téeméeri at dafee milliards at nga fay dund ci gàttal la gën a yàgg loolee moo ëpp moom nga war a gën a yittewoo boo xamee nag ne la gën a yàgg moom nga gën a war a yittewoo xamit ne adduna àllaaxira ko gën a yàgg boole nga ñaari xam-xam la cay tegu mooy nga xam ne kon àllaaxira moo gën moom lañ war a gën a yittewoo noonu la ko imaamul Xasaali leerale xalaat nag mooy buntub leer mooy ceebi xam-xam xam-xam yépp ci lañ koy balluloo ci lañ koy seetantale ba génne ca mbelli xam-xam yi ñu bari nag xam nañ ngëneelu xalaat waaye dëgg-dëgg xalaat mooy lan loolu umpale nañ ko umpale nañ lan la xalaat di jur ak fan lay bawoo ak naka lañ koy defee ak ci lan lañ waru xalaat loolu moo sabab xëy na waxtaan wi xalaat nag am na ñetti mbir yoo xam ne mën cee ñàkk faw mu am ndab loo xam ni mooy taawu xalaat bi ndab loolee ma ne ni mooy làkk wi ndax faw làkk ngay jëfandikoo ngir nose ci baat yi nekk ci biir làkk wi ak maanaa yam yor ngay nose loolu yi mënta ñàkk ndax loolu yi mënta ñàkk waaye li nga xamoon it am na dencuwaay boo ko denc ci sa biir xel dencuwaay boobee mooy yuur gi nga xam ne ak fii xam-xam yi dajaloo ci sa xel rek ñetteel ba mooy bërëb bi nga dëkk ak nit ñi nga dëkk dañuy jeexital ci say xalaat moo am ñaar yoo xam ne jege nañ waaye bokkuñu mooy dikr ak fikr dikr mooy tudd yàlla yàlla ci yàlla la aju fikr nag moom ci mbindeefi yàlla yi la gën a aju te loolu mënees na koo déggee ci alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim yadkuruuna allaha waaye bu àggee ci wàllu xalaat dafa wax ne wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ard kon tudd moom ak fàttaliku loolu ci yàlla lay aju waaye bu dee xel moom ak xeltu ak jëf loo xalaat loolu day aju ci milieu fi suñu borom yi tabaaraka wa taala teewul nag jëf loo xalaat bu yàggee mooy juru xol bu yeewu mën a fàttaliku suñu borom tabaaraka wa taala bu ñu seetloo itam ci alquran gis nañ ne alquran fonk na lool xalaat baatu fakara ñetti xaraf yooyu fakara dikk na ci ñaar fukki yoon baat bi rek ci ay tëggin yu wuute mel ne kadalika yubayinu llahu lakum layaati laallakum tatafakkaruuna awalam yatafakkaru fi anfusihim ak faqsusi lqasasa laallahum yatafakkaruun bu dee nag yi nga xam ne dañ ciy xalaat ci geneen anam gu bokkut ak baat baatub xalaat loolu dikk na ci alxuraan ci anam yu baree bari lu mel ne inna fi xalqi samawaati wal ardi wa ixtilaafi alleyli wannaheeri la ayaati li ulil albaab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض foofu gis nañ suñu borom tudd ay mbir yu bare bare yoo xam ne dañ caa war a jëf loo xalaat danañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala ak lu mel ne kadalika yubayinu allahu lakum ayatihi laallakum taaqiluun ak undur kayfa nusarrifu layaati laallahum yafqahuun yuuti alxikmata man yashaa wa man yuuta alxikmata faqad utiya xayran kathira wa ma yadakkaru illa ulul albaab muy dem rek kon jëmmi lu aju ci xalaat moom bari na lool lu mu rot ci alquran ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam mën nañ cee jël rek benn xadis te mooy li ata ibnu abi rabax nett li ne damaa mas a ànd ak ki ñu wax ubayd ibnu umayr ñu dem ci soxna aïsata radiallahu anha bañ demee mu waxtaan ak nun ne ma yow day ubayd waa ubayd ne ko yow de gëj naa laa gis ne ubayd laaj ko ne ko lan moo la gën a yéem ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga gis ci moom nee na soxna aïsa ne teg ba mu yàgg mu jooy jooy yu metti daat ne ko bis day dafa mas a ñëw fi man ak guddi bi mu agsee wax ma ne dama bëgg nga may ma ma jaamu yàlla nee na nag jàpp di julli ci néeg bi di julli di jooy jooy yu metti ba fajar xar mu tëdd tuuti bi bilaal ñëwee di noddu bilaal la ko laaj ne ko looy jooy yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te yow xam nga ne yàlla jéggal na la sa bàkkaar yépp la jiitu ak li mujj nee na yonente bi ne ko way xaka yaa bilaal wa ma yamnacuni an abki wa qad anzala allahu alaya fi hadihi alleyla inna fi xalqi alsamawati wal ardi wa ixtilaafi alleyli wannaheeri la ayaati li ulil albaab ne man day damaa war a jooy ndax yàlla daa wàccee ci man aaya boo xam ni ci wàllu xalaat la jëm mooy inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari la ayaati lil baab mooy yàlla dafa wax ne mindee fi yàlla yi asamaan yeeg suuf seeg guddi yeeg bëccëg yi yooyu nit ñi dañ cee war a ay kiimaan la yoo xam ne nit ñi dañ cee war a jëf jëfandikoo seen xel di xalaat ngir xam màggug suñu borom gi tabaaraka wa taala ngir mën a dolli ku ngëm yonente bi wax ko nag ne képp ku jàng aaye boobu te xalaatoo ci tuskare ñeel na la loolu moo tax la tàmbalee ca saxaaba ya jaar ci taabiroona yi ba ci nit ñi baax ñépp dañ daa fonk di soññi nit ñi ci ñuy jëfandikoo seen xel ndax ngëm goo xam ne dafa tegu ci xel dañuy wuuteeg ngëm goo xam ni danga gëm rek nga bëgg ngëmu bëbbëstal goo xam ni nit ñi dañoo gëm rek ma gëm loolu dañ ci ñëw léegi mën nañ cee tàmbale bu dee ci saxaaba yi ku mel ne Seydina Abdullah ibnu Abbas danaa wax ne ñaari rakka yu dugg doomu ma taxaw ko sama xel nekk ci li may wax ak li may jàng di xalaat ci biir julli gi moo ma gënal taxaw guddi gépp te sama xel nekkul ci li may def sayidna abu darrin al gafaari ki ñuy wax muhammad ibnu waasia dafa wax ne dafa am waaju mas a dem këram laaj soxnaam ginnaawam ginnaaw bi mu fi jógee laaj soxnaam ne ko nan la daa jaamoo yàlla moom abu darrin al gafaari soxna sa ne ko moom de ak jaamoom li ma ci xam mooy amoon na daal ruq boo xam ne ci biir kër gi waxtu wu ne fa lay toog di xalaat rek waaye dawut def ay jaamu yàlla yu bari sax waaye xalaat la ëpp lu mu daa def am na ku ñu daawa amir ibnu abdul qays abdul qays dafa wax ne lu ëpp benn ci saxaaba yi ñaar ba ñetti saxaaba ku ci ne ci ñoom dégg naa mu wax ne leeru ngëm mu ngi juddoo ci xalaat moo tax alxasanul basri danaa wax ne xalaat wenn waxtu moo gën taxaw guddi gépp di julli toog wenn waxtu xalaat ci mag suñ borom gi ak mbindeef suñ borom yi ak yi ñu war a xalaat rek te dinaa ci ñëw insha allahu taala ni ko sëriñ bi waxee loolu bu ñu ko toppoon ku mel ne Taawus ibnu Kaysaan al Farisi nekkoon ab taabii danaa wax ne xawaari yoon yi dañoo mas a laaj Seydina Isa ne ko yow ndax am na ku mel ne yow Seydina Isa ne leen koo xam ni ay waxam jëpp tudd yàlla la noppeem jëpp di xalaat suñu borom tabaraka wa taala ak màggam gi ak gisam yëpp di lu koy jural mu waaru ci yàlla subhanahu wa taala kookee de maa ngi moom benn lañuy doon kooku moom man benn lañ nekk noonu al Fudayl ibnu Iyaad moom it danaa wax ne xalaat seetu la boo xam ne dalay wan li baax ci yow di la wan it li bon ci yow boo xamee li baax ci yow nag jéem cee di ci sant yàlla li bon ci yow nga jéem ca nga jéem koo moytu ak jéem caa génn kon loolu bari na lool mbirum xalaat luñ ci mënoon a wax bu dee nag sunu sëriñ si Ahmad Bamba radiyallahu anhu moom wax na ci lu baree baree bare wax na ne xalaat wax na ci njariñam lu baree bari ndax dafa wax ne xalaat dafa bokk ci li ëpp solo min anfasil asiyaa yi amma tafakkuru fa aydan qad ata min anfasil asiyaa yi xaysu usbita dafa bokk ci li ëpp solo ci li nit ñi def li nit ñi def amul lu ci ëpp solo toog xalaat màggug suñu borom gi ak xalaat ci sa bopp rek danañ ñëw ci wàll yi ñu war a xalaat yépp insha allahu taala sëñ bi wax ne al ilmu qataa yi mooy xam-xam bu wër bu dogu bu amul laam-laamee ci suñu borom xalaat moo la ko mën a may id ilmuna al qataiyu laysa yaxsulu illa bi fikratin bi dihnin yaqilu sëñ bi sa àggale ci wax ne maarifa billahi ci xalaat lay juddoo daa nett li waxi imaamul Ghazali ji mu waxoon ne diine ñaari meññet la am mooy wéttali ko yàlla ak am maarifa billahi xam suñu borom tabaraka wa taala wéttali ko yàlla nag li koy maye mooy bari tudd yàlla tudd yàlla yi mooy yi ñuy def rek jàng alquran ak salaatu ala nabi istigfaar ak laa ilaha illa te yooyu boo seetloo xasiida yi sëñ bi dajale na ci lu dajale na mboolem xeet tudd yàlla yépp tudd yàlla yooyu nag sëñ bi dafa wax ne lim lay may mooy nga wéttalikoo suñu borom dem ba yàlla nga di ko wéttalikoo ci lépp nga xam ne boo wéetee léeg-léeg moo lay gënal nga nekk sax ci biir nit ñi waaye nag xam suñu borom loolu xalaat moo koy ci lay juddoo man wax ne wa wa qaala fi l ixyaai xudta biini inna nihayata thimaari diini fi hadihi dunya xusulu lmaarifa والأنس بالله ذكرا فعرفة والأنس من بعد دوام الذكر أما التعرف فبعد الفكر moo tax sëñ bi danaa wax ne xalaat mooy li gën ci jëf yi loolu wax na ko lu bare bare bari wax na ne ibnu abi jamrata radiallahu anhu faxluddin danaa wax ne nassa bi ann al fikra fi l azmaani afdalu l amali li dil imaani ki gëm yàlla ab jullit li gën ci moom mooy mu toog di xalaat sëñ bi sax danaa wax ne wenn waxtu woo toog di xalaat mi ngi tolloog jaamu yàlla ak at wa axbaru bi fawqi fikri saa ibadata sanati lazim taa boo toogee wenn benn waxtu teewlu di xalaat moo xam ci suñ borom la wala lu aj ci sa jëmm ci anam gi ñu ko nar a waxee insha allahu taala loolee sëñ bi dafa wax ne mooy tolloog jaamu yàlla at te boo demee ci xadis barot te nekk ci ibnu xabba ibnu xibbaan génne ko ci kitaabul azama moom sittiina sana la wax mooy dafa wax ne wenn waxtu woo toog mi ngi tolloog juróom benn fukki at ci jaamu yàlla moo tax xalaat lu rëy la lu am solo la sëñ bi sax lu àgg na ci wax ne sëñ Tuubaa àgg na ci wax ne jamono sa diirub jamono sa dund gépp lay tollool wenn waxtu woo toog di xalaat mi ngi tolloog sa dund gépp nga nga doon ko jaamu yàlla kese te xalaatoo wa axbaru bi annahu afdalu min ibadati dëhri bila xulfin yain sëriñ bi wax na itam ne xalaat mooy seetu jullit bi mooy seetu seetu aji gëm ci lay xamee boppam boo toogee xalaat rek di nga xam yaay kan ba tey sëriñ bi wax na ne xalaat dafa am laale ak ngëm dafa am laale ak ngëm wax na ne ngëm gu dëgër dëgg dëgg mënta am li feeg xóotaloo ay xalaat ci suñ borom ak ci màggam gi ak ci mbindeefam yi moom la wax ne wa quwatul imaani bil jabbaari bi qadri taamiqika fi l afkaari sëñ bi sax wax na ne ki nga xam ne daa gëmu ginnaaw bu mu jëfloo xalaatam bu mu jëfandikoo xelam ak xalaatam kooku day wute waxtu wu ne ak ka nga xam ne daa gëm rek gëmu gudd sër nga xam ne nit ñi gëm nañ ma gëm rek yow na ngay gëm xamoo lu mu doon xamoo fu mu tege xamoo ci dara suñu wax ne walaysa tasdiqun wala imaanu bihi buaid al fikri ya ixwaanu ka mithli l imaani badihatan bihi fal awalu l akmalu faltantabihi idil idil fataa إذا تفكر قوي إيمانه حقيقة كما روي وظهر الحق له يقينا فيحتوي الصفاء والتمكينا كي خمنا دفا جفنكو خلم بام جوخكو amuk sun borom gi tabaraka wa taala kooku ngëmam sëñ bi daa wax ne mooy gën a dëgër ki nga xam ne daa gëm rek ci ak roy nit ñi kon ndax sëñ bi daa wax ne xalaat day dëgëral sa ngëm day tax nga am yaqiin ci sunu borom tabaraka wa taala gën a sax moom sëriñ bi wax ne ngëm mënta dugg moom li fekk jëfandikoo woo xalaat jëfandikoo woo sa xalaat laa yasbiqu wa hakada al imaanu laysa yasbiqu illa biha aydan ala ma ttafaqu kon xalaat lu am solo la foofu dañuy dugg ci ñaareelu tomb bi te mooy mbir yi nga xam ne dañ caa war a xalaat yooyu yu mu war a doon ak naka lañ cee xalaatee loolu ba leen ci dugg dañuy njëkk a wax ne xalaat mënees na ko def ci ñaari mbir mën nga xalaat ci mbirum adduna waaye mën nga xalaat ci mbirum alaxira wala ma ne sax mën nga xalaat ci mbirum adduna waaye mën nga xalaat ci mbirum diine ndax diine làmmoo na alaxira ak li ci adduna itam mbirum adduna tey du taxut a jug waxtaan wi te ñun fi ñuy waxtaane mooy xalaat boo xam dafa jëm ci mbiri diine ba tey bu dee ci mbiri diine itam liñ ci gën a soxal mooy muamala te mooy diggante jaam bi ak boroomam subhanahu wa taala jaam bi nga xam ne dafa sóobu bëgg a dem ci yàlla ki nga xam ne dem na ba yàgg mu wóor ko ne yàlla am na moom wóor ko ne itam adduna si day jeex te wóor ko ne itam ne war naa dëpp war naa wuti yàlla itam loolu day am ci nit léeg-léeg kookee bu sóoboo yàlla boole ko bu xamee dara ci yàlla day bëgg suñu borom tabaaraka wa taala cofeel googu yi mu bëgg suñu borom nag day jur xalaatam benn mu nekk ci jëmm suñu borom ja wala mu nekk ci jëmmam moom bu dee xalaat ci jëmmam day xalaat moom ay meloy boppam ak i axwaalam li ci yàlla gërëm ak li nga xam ne yàlla gërëmu ko ci loolu lay xalaat bu dee li aju ci suñu borom moom day xalaat meloy suñu borom yi mën na xalaat ci jëmmi suñu borom te loolu doon ci dikk wala mu xalaat ci jëfi suñu borom yi tabaraka wa taala mbir yi du génn foofu su dee bu dee xalaat ci boppam léeg-léeg mu xalaat ci li yàlla bëgg ak li yàlla bañ bu dee xalaat ci jëmmi suñu boromam ni ma ko waxee mën naa xalaat ci jëmmi suñu borom ja wala ci ay jëfam bu dee xalaat ci boppam nag day xool rek melo yi nga xam ne mooy yiñ gërëmul yooyu mën na cee seetantal melo yépp rek buñ ci jël day xool ndax bii mu ngi ci man wala ak bu nekkee ci man nan laay mucce ci nan laa ci mucce nan laay teqalikoo ak moom ak bu nekkul ci man nan laay fexe ba mu bañ a ne ci man moom melaw yi nga xam ne yàlla gërëma ko bu fekkee masoon naa ne ci man te dañ itam nan laay fexe ba jéggulu loolee yàlla ba dootuma ca dellu mukk kon ñett yooyu moom lay xalaat ci mboolem meloom yi nga xam ne buy jag bu dee melo yi yàlla bëgg itam noonu la cee xalaatee ndax am naa ko wala amuma ko bu ma ko amul nan lay fexe ba am ko su ma ko amee nan lay fexe ba mu sax su fekkee ne amoon naa ko te ñàkk ko nan lay fexe ba dabaatal ko loolu kon ci loolu lay xalaat nga xam day xalaat kon ci mooy yàlla yi ak topp yàlla yi farata yi ak yooyu lam cee def ak lam cee defut dabaatal la weesu ak jàngoro xol yi itam dana ci xalaat lu mel ne mer wala rëy wala nay wala naw jëf wala ngistal wala kañaan wala ñaaw njort yooyu ay jikko yu bon la yoo xam ne sëñ bi wax ne ay jàngoro la te yooyu war ngaa toog xalaat ndax am naa ci benn wala déet boo ko amee nan lay fexe ba mu dañ su fekkee ne awuma ko waaye xam naa ne man na maa dal ëllëg nan lay fexe ba mu mucc ci ba du ma dal comme ni ma ko waxee léegi rek bu loolu weesoo am na jikko yu baax yoo xam ne dafa war a dëkk ci sa xol ni ko sëñ bi waxee lu mel ne tuub saxoo tuub ak muñ ak sant yàlla ak ragal yàlla ak dëddu ak sellal ak dëggu yooyu loo ci amul war ngaa toog xalaat nan ngay fexe ba am ko boo ko amee nan lay nan ngay fexe ba mu yokk nan ngay fexe ba mu sax ci yow la nga ci jot a amit nan ngay def ba yàlla nongul la ko kon loolu mooy gàttalu fi xalaat bi war a jëm ci jaam bi nga xam ne. dafa bëgg yàlla subhanahu wa taala du génn loolu benn mu xalaat ci boppam wala mu xalaat ci boromam subhanahu wa taala bu dee xalaat ci boromam nag moom mën naa xalaat ci jëmmi suñu borom bi danaa ci ñëw te loolu am na lor ju ci ne du ñëpp ko man moo tax ñu koy far aaye ñu ko aaye mbooloo mi amat naa si rawatina nit yàlla yi gën a màgg rek ñoo mën di xalaat ci jëmmi suñu borom ji ndax dañuy wax ne doomu aadama yi digganteem ak xalaat suñ borom mi ngi mel ne njugub xam ngeen ne njugub mënta gis leeru jant jii nii bëccëg bi sax du génn day day day day tëju ci fam ne ca lëndëm nga ba guddi mu génn di xool ci des yiti leeru jant bi lépp ci nit ñi loolu rek lañ mën mooy mënuñoo xalaat ca suñu borom waaye jeex yiti suñu borom yi ci la ñuy mën a xalaat mu tegtal leen suñu borom nit yàlla yi nag ñoom dañ leen di misaal comme nit doomu aadama xam nga bëccëg bi mën naa xool jant bi waaye du yàgg bu yàggee rek mu jural ko yàq ay bëtam wala bémpañ wala yu deme noonu waaye nag mën ngaa xool ci loo xam ne jeexit la ci jant bi mu mu jariñoo ca xam tegtaloo ca itam jëm ci jant ba kon loolu lépp ci di jaam yi fi jaam bi fi muy xalaat loolu sëñ bi nag wax na majalaatul fikr mooy yan lañ di war a jëfal jëfloo xalaat ak yan mooy yi nga xam ne waroo caa xalaat la ca jiitu ci li ñu war a xalaat mooy asamaan yi ak suuf si sëñ bi wax ne wa xayru man abdu yakunu daa fikar fihi samawaatu wal ardu fi lxabar li gën ci li ngay jëfandikoo sa xalaat mooy nga xalaat settantal asamaan yi suñu borom ak suuf si nu ne suuf si dañ koo miin rek waaye bërëb boo xam ni ab bul rek la buy wëndeelu ci kaw jaww ji te dara téewu ko muy dox dox bu xiir di wër boppam te loolu moo nu jural dégg nga maanaam waxtu yi nu am ñaar fukki waxtu yi ak ak naa nga ak guddi gi ak bëccëg gi weer wi di wër suuf si ñoom ñu ànd di wër jant bi jant bi nekk ci biir lu ñuy wax najarra mooy pap tubaab bi maa ngi koy jégalu baal tubaab mooy galaxie boo xam ni mooy kër rek boo xam ni dafa dajale lu mat ñeenti téeméeri junni ñeenti téeméeri milliards yi ñeenti téeméeri milliards yi biddiw yoo xam ne yu mel ne jant bi la nga xam ne bokkut ak biddiw yeneen topp loolu mooy kër gi ne fi ne nii te liñ ci gis ci yu mel noonu ci xeeti majaraat yooyu kër yooyu nga xam ne moo dajale biddiw yooyu mat na téeméeri junni milliards ci liri trillion dégg nga milliards ci ay galaxie masalan màggaayu li ne li ñu xam ni ci li yàlla sàkk li ci doomu aadama gis loolu mën na laa jural nga xam ne yow ñun maanaam amuñu solo daal te yàlla fonk bi ñu fonk it loolu dañoo wéyaat fi yow ak cër bi mu jox di wax ak ñun tànn ay nit wax ne sax kenn ci doomu aadama yi moo tax muy mu sàkk mboolem lim sàkk loolu lu rëy la te lim sàkk lépp it wax na ne ñun ñoo tax ñu sàkkoo ndax ñun la ko. tàggatal ne di ko jëfandikoo nu mu nu mu neexee wa saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi lardi jamian minhu saxara lakum wax na ko ba tey wa asbaga alaykum niamahu zahiratan wa batina kon loolu mënees na ci jëfandikoo xalaat ci asamaan yi ak suuf sii nu ne rek ak ni fi ne ne dégg te muy wër dox dox bu xiir te yëgunu ko loolu xéewalug suñu borom la tabaraka wa taala ak li nu fi téye muy jaasibiye bi nga xam ne bu gënoon a rëy tuuti bu suuf si gënoon a rëy tuuti dañuy taq ci suuf si ni jaan ñi dat moo noonu la ñuy dat moo ci suuf ndax du mën a jug li tax boo boo boo waddee da nga fiy desaat loolu mooy jaasibiye boobu loolu nag suñ borom da koy yemal ba mu yem ci nun sunu dund rek ëpp di yeesut bu gënoon a tuuti dañuy naaw dem ci dem ci jaww ji yàlla teg ko itam ci bërëb boo xam ne moom suuf si ëppul yeesut bu gënoon a jege jant bi tàngooru jant bi dana ko lakk lakk gàncax gi te bu gàncax gi faatu noonu bu subaanu faatu noonu nit ñi bu gënoon a sori jant bi it mën naa sedd mën na koo gaañ ba jant bi li war a agsi du agsi te boo dañuy faatu ngirub seddu yàlla teg ko ci fam war a yem yooyu xalaat yu bare bari mën naa juddoo foofu sëñ bi teg ci itam ne boo am na beneen wàll boo xam ne waral na ci xalaat mooy xéewali suñ borom yi wa baadaha fikratuhu fi niami li annaha tazidu xubb almunimi xéwali suñu borom yi boo ci jëfandikoo xalaat suñu doon ne day tax nga bëgg yàlla subhanahu wa taala doomu aadama daa bëgg ku koy defal soo ko dee defal da lay bëgg soo ko dee xañ nag mën na laa bañ te yàlla xéwal yi mu defal bari na mën nañ ko misaal rek ci kenn ku ne ci noonu xéwal yoo xam ne yàq ñu bari jàppee wuñ ko xéwal bu guddi jotee ñun ñëpp dangay tëdd rek di xaar xéewalug nelaw ne suur nga yëg ne nekkoo fi boo demee ba noppalu ba noppalu ba noppalu nga yëg ne delsiwaat nga te nelaw moom yi de bu nu ko yàlla xañoon ñetti fan dootoo amati jàmm dootoo amati jàmm tey ndox boo xëyee suba ndox mi ngay jëfandikoo mu yomb lool ci sa kanam waaye ndox moom it dara ëpp ko solo dafa yem ci sa bëgg fi ne tey bu gënoon bu qualité bi gënoon a diis comme diwu masalan kenn du ko mën a jëfandikoo ci noonu te sa lépp ci la aju moom dund gépp ci la aju boo ko ñàkkoon ñetti fan si te yépp da nga koy def ci am ko kese lay lay lay jëm tey yit gi nga am sago si nga am xel mi nga am nii yàlla jox la ko loolu xéewal la am na ñu ko yàlla xañ te mën na la ko xañ waxtu wu ne itam kàttan gii nga am ni nga xam ne ba muy dugg ci yow yëgoo ko dangaa nekk xale rek juddu mënoo dara nga yëg ne yaa ngi am kàttan di màgg kàttan gi yokk ba ni mu nekk ci njobbaxtanu kàttan noonu it lay wàññi ko waat di wàññi ko waat di wàññi ko waat ba nga xëy gis ne dellu nga ci ngone wax jii ngay wax nii masalan da nga yëg ne bëgg ngaa wax rek gis ne yaa ngi wax waaye xéwalul wax nan ngay def ba wax fi ne xamuloo ko yooyu yëpp ay xéwal la yoo xam ni yu jege la fi mu ne nit ki nga xam ne dafa aajo woo wana dugg ci wana wi faj aajoom génne posen yi nekkoon ci biiram loolu xéewal gën ko rëy moo tax yonte bi daa dig leen ne bu ngeen ko defee na ngeen sant yàlla alhamdulillahi alladi adhaba anni al ada wa aafani boo tiimee ndab ndabul xéewal ba tey gis xéewal koo xam ni day mel ne lu yomb ci sa kanam waaye ak a jafe ci aw nit xéewal googu li ci daje na mu def ba agsi ci yow maanaam mënoo ko xam dara gën koy xewal moo tax yéen tamit daa xam ne bu ngeen xewloo ba nopp na ngeen sant yàlla wax alhamdulillahi alladi ataamani hada taama wa razaqanihi min gayri xawli minni wala quwa kon xéewal yooyu di ci xalaat suñ bi daa xam ne bokk na ci lii fànn yi nga xam ne ak mbir yi nga xam ne war nañ ci xalaat te dalay yokk nga bëgg yàlla su fekkee yàlla moo lay taxawoo noonu nga xam ne yow sa lépp mën la ci taxaw di la dimbali di la jàppale ci lépp kooku bu yàggee da nga koy bëgg waaye suñ bi wax ne itam ne bokk na ci yi ñu war a xalaat yi ñu war a jëfandikoo xalaat mooy yoonu suñ borom bi yoon yi nga xam ne moom la yàlla dig ak xéewal yam yàlla dig ya yàlla dig ñi gëm ëllëg loolu dafa ne fu ñu war di xalaat la itam wal fikru fi thawaabihi lil muminin gadan yazidu ragbatan lil muslimin fi taatin lahu maa ijtihaadi wa daaka xayru nafi lil ibaadi yàlla suñu borom am na lu mu dig jaamam ñi nga xam ne ñoom la gërëm mooy ñi gëm te loolee mooy aljana aljana bërëb la boo xam ne suñu borom dafa wax ne boo fa duggee benn jafe-jafe dootoo ko am dootoo wéradi doo faatu doo am benn jafe-jafe sa dara du metti amul sax aw tàngoor wala sedd bu metti ci jàmm ngay ne te doo màggat sa dara du metti ci saw yaram te loo bëgg am ko xéwal goo bëgg nekk ci na nga ko bëgg rek te kenn du la yilif diine sax julli yeeg yi ñuy digle foofu amatu fa kenn ku ne ci sa bànneexu bakkan ngay bëgg da nga ca na nga ko bëgg rek noonu nga koy amee lahum ma yashaauna fiiha wa ladaynaa masiid bërëb boobu ak xéwal yooyu jaam bi bu ci xalaat dana tax mu gën a yokk ak jaamam dana tax mu gën a farlu ci lu baax te xam ne foofee kat boo fa demul yow day ñàkk nga loo xam ne mënoo ko dabooti waaye sëñ bi wax na itam ne di xalaat léeg-léeg ci mbugal mi yàlla dig ëllëg ñi nga xam ne ñoo ko weddi wal fikru fi l iqaabi lil kuffaari fi nnaari yufdi l abda lisdijaari kama yazidu rahbatan wa manaa min al maasi nicma daaka nafaa mooy yàlla ñi nga xam ne ñoo koy mooy féetéerlu dig na leen ne ëllëg dana leen duma bërëb ba mu leen dig nag muy sawara bërëb boobee ni ko yonente bi melale ëpp naa def benn seconde waxuma laak di fa yàgg dara seen saa rek ëpp na fa ndax bërëb boo xam ne lépp sawara la wuy tàkk nga nekk ci biir te doo faatu te di yëg metit wi loolu dara jëru ko dara gënu ko gënu ko gënu ko doy waar sëñ bi wax ne loolu boo ci xalaat dana tax nga tiit te dana tax mooy yu baree bari da nga ko moytu nekk loolu sëñ bi wax na ne bokk na ci yi nga war a jëfloo xalaat te mooy suturaal gi la yàlla suturaal ci say ayib wal fikru fi sitri dunubina huna yazidu l istixyaa minhu zamana kama yaziduna rajaa al xayri maunatan minhu bi xayri bayri bi xayri bayri dafa wax ne yàlla suturaal gëm na suturaal ndax kenn ku ne ci noonu xam nga ne yow li nga xam ci sa bopp bu ko nit ñi xamoon danañu la bàyyi te kenn du la sax jox loxo waaye yàlla defal na la sutura soo xam ne rafetal na sa sa zahir sa kaw ba ñëpp rafet ci yow njortu fonk la jàpp ne sax yàlla gën sutura soo si nag sëñ bi dafa wax ne léeg-léeg mat nay xalaat bu baax a baax a baax sutura si la yàlla defar ndax yow boo wéetee sa bopp di nga xam yaay kan moom di nga xam yaay kan di nga xam li nga nekkee li jëgut ci yow xam nga ko sa xol bi yi ci bóof ci ay xeeti jàngoro yépp xam nga ko donte nit ñi nag ëmp nañ ko loolee nag sutura si la yàlla defal ba kenn xamu ko ci àdduna loolu sëñ bi daa wax ne mat nay xalaat ndax dana tax nga rus suñu borom tabaraka wa taala dana tax nga rus sunu borom tabaraka wa taala kon yooyu mooy yi ñuy xalaat sëñ bi ko tënk ci yeneen i bayit wax ne mooy fal tudimi lfikrata ya xamimi fi l ardi walsamaai walnujumi walchamsi walqamari walasjaari walmaai walnaari wa fi laxjaari wa gayriha kallayli wannahaari tanal yaqin alqalbi bil anwaari mooy yii mooy yi nga xam ne ci nga war di xalaat mooy suuf si nga ne nga di ko settantal di xool kaawteef yi fi ne ngir nga mën cee gëmee sa borom tabaraka wa taala asamaan si noonu biddiw yi noonu jant bi noonu weer wi noonu ak garab yi ak ndox mi ak sawara wi ci kaw suuf ak doj yi ak guddeeg bëccëg yooyu la suñu wax ne mooy yi nga xam ne jullit bi da cee war di jëfloo xalaatam bu ko defee dana ko jural yaqinul qalbi dana am yaqin ah dana am leeru xol itam foofu am na loo xam ne sëñ bi tuddaale ko ci yi war a xalaat waaye man jàpp naa ne man na caa jëfandikoo xalaat te mooy jëmmi sëriñ bi ci boppam murit boo xam ne teelewu sëriñ Tuubaa la léeg-léeg war naa mën a jëfloo xalaat ci jëmmi sëriñ bi te loolu am na njariñ itam am na meññet mu ci am jëmm joo xam ne jëfam yépp ak li mu sottal ci kaw suuf moom xel mënut a jàpp ne xaj na ci dund loolu bërëbu xalaat a ngi loolu dëgër bu mu dëgër ci ngëmam ak ay pas-pasam bu nangu cee dellu ginnaaw ak lu mën a xew ak luñ ko mën a teg loolu it lu mat a xalaat la rëcc gi mu sax di rëcc waxtu wu ne ci saa yooyu ko bëggee faat bakkanam nga xam ne tey lu ne tegoñ ko ngir faat bakkanam te waxtu wu ne muy rëcc loolu it lu yéemu la ci sëriñ bi lu mat a jëf loo xalaat la itam li mu bind itam nga xam ne bariwaay bi boo ko xaymoon ci koo xam ne bind kese lay def day mel ne day day da ngay jàpp ne sax xëy na xawta xaj mën a xaj ci dund loolu yëpp bërëbu xalaat la te loolu yëkkut yeneen wàll yi lu mel ne lim daa julli boo ñëwoon ci julli da ngay jàpp ne julli kese la daa def boo ñëwee ci koor nga yaakaar ne woor rek moo doon liggéeyam boo ñëwee ci jàngale nga yaakaar ne jàngale kese la doon def ba ñëwee ci jàng alxuraan nga yaakaar ne jàng alxuraan kese la doon def faj aajo nit ñi ak jëflante ak nit ñi ak wax ak nit ñi ak dimbali leen ak jubbanti leen loolu da nga yaakaar loolu rek fànn googu rek ci la dem yooyu yi noonu ay bërëb yi ay fànn la yoo xam ne ay wàll la yoo xam ne mas na ci jëfloo xalaat rawatina nag xam-xamam bu yaatu bi nga xam ne moom képp ku jongee mbindam rawatina mbindi xam-xam yi gis delluwaay yu bari yi nga xam ne moom la ci ak fa muy tuxale fépp loola ci jamono joojee bokk ak it nan la ko doomu aadama mën a feele ci xam-xam bu rëy boobu loolu ba tey bërëbu xalaat la taxaw gi mu taxaw nag ci kanam tubaab yi nga xam ne ñoo doon tooñ te ñu nangoon bëggoon a yëlif réew mi ci kaw doole taxaw gi mu taxaw ci seen kanam ba lañ bëggoon ci réew mi amewuñ ko nañ ko bëggoon loolu ba tey mas na ci xalaat fànn yooyu yëpp nag ay fànn yu yéeme la ci sëriñ bi yoo xam ni nit ki bu ci xalaat la mu koy jural ñaar lay doon li ci gën a gàtt rek ci li mu koy jural mooy mu xam ne sëriñ bi diine ji mu ne moo wér loolu la loolu lay tekki ndax diine yi bari na diine yi mat na junni diine ci kaw suuf lu bari dañuy naatam li ban moo wér ban moo wér waaye sëriñ bi boo ci jëfandikoo sa xalaat lam lay jural mooy diine jëm ne moo wér ñaareel ba itam lim def lépp ngëm moo ko ko may ngëm moo ko lal ngëm gu dëgër moo ko lal moo ko may pas-pas booboog positif booboog yitte ju kawe jooju da nga ci xame kon ne ngëm ba léegi fa mu nekkoon ma nga fa ngëm moom mi ngi mel ne nga wéré di dem ca docteur ba mu bindal la garab garab googee boo ko jëfandikoo ci ngay boo ko jëfandikoo ba noppi ci ngay doo gis jeexit yi boo si borom ñu bindal la garab soo ko jëfandikoo ba noppi ci ngay gis sa yaram tàmbalee sedd nga gis jeexiti garab yi waaye feeg jëfandikoo woo ko doo gisaguñ jeexit jooju ngëm doon la demee feeg ngëmoo ba noppi jeexiti ngëm du feeñ ci yow te ngëm moom lu ne mën na koo taaw jeexit yi ci ne yàlla rek moo ko xam. ñu ñëw nag ci yi nga xam ne sëñ bi daa wax ne kenn waru ci xalaat la ci jëkk mooy jëmmi suñu borom ji tabaraka wa taala sëñ bi dafa wax ne wal tuktiril fikrata fi lxalaayiqi baada taallumika laa fi lxaaliqi na nga bari la xalaat lool ci mbindeef yi sa kem kàttan waaye nag bul xalaat ci jëmmi suñu borom ji tabaraka wa taala lu tax mooy li ma waxoon léegi rek mooy doomu aadama yi ñu ngi mel ne ñi ma ko misaale njugub njugub bëccëg bi mënula gis leerub jant bi ba tax na day làqatu bëccëg bi guddi gi lay génn di xool des yi te leerug jant bi ndax leer gi weer wi am ci leerug jant ba la bàyyi ko ak leer yi nga fi gis yëpp ci leerug jant bi la la bàyyi ko des yi te leer yooyu nag la mën a la mën a teg bët xëy na foofu nag lépp ci nit ñi noonu lañ mel ci jëmmi suñu borom ji buñ ci jéemee xalaat rek dañuy gërëm duñ dem seeni bët day yàqu seen bëti xol mooy mooy mooy mooy yàqu ndax dañ du xam fan la ñuy jaar nit yàlla yi gën a mag nag siddiquun yi ñoom mën nañ caa xalaat waaye dañuy wax ne ñu ngi mel ne doomu aadama moom bëccëg bi mën naa xool jant bi waaye bu yàggee mu yàq bëtam léeg-léeg rek teg rek ndànk teggi wala mu xool nag ci ndox moo xam ne jant bi da cee tàppe tàmpe mu gis jant bi ci biir ci ndox mi jaare ko ci kii loolu mooy jëmmi suñu borom jëfam yi nga xam da koy tegtale loolu mën na si na cee xalaat waaye jëmmam joom day jur alxayratu wa dëhshatu wal id wa tiraabul aqli loolu lay jur ci ki nga xam ne moo ci moo ci moo ci moo ci xalaat moo tax melo yi suñu borom yi ci ngay xalaat melo yi itam jëf yi lañ bëgg a wax jëf yi nga xam ne melo yi ñoo ko jur ci ngay jëfloo sa xalaat xam ngeen ne jëmmi suñ borom tabaraka wa taala ak amam ci mbindeefam yi lañ koy tegtaloo loolu ci bu ñuy jàngale tawxid mooy lu am manhaju dalalatul iltizam léeg-léeg am na mbir yu bari yoo xam ne yow ci sa dund da nga ko jàpp te li tax nga jàpp ko ay yeneen i mbir a tax ci misaal boo déggee nit koo xam ne dafay onk saxal ne dem ci ne kii dafa wéradi te noonu la demee itam soo nekkoon ci lëndëm gi dégg kàddu gu wax da nga xam ne nit wala wala mbindeef moo yëngu foofee te loolu gisoo mbindeef ma waaye jàpp nga ne mbindeef ma ma nga fa tey bu ñu la waxoon ne dëkk bi maanaam boo duggee ci dëkk gis lépp di ay jàkka da nga xam ne dëkk bi ay jullit lañ bu la kenn war nag waa dëkk bi yépp du ñu ay jullit ay nasaraan lañ doo ko mën a gëm ndax ay jàkka rek nga fi gis muy dem rek bari na yoo xam ne lu mel ne tey boo gisee nit ku sew sew boo xam ni tuutaay boo xam ni dem na dayoo sa xel la dem ci ne kii dafa dafa wéradi te gisoo wéradi ga masalan boo gisoon nit koo xam ne mi ngi jeeng jeeng ci digg mbedd mi da nga jàpp ne kii dafa naan lu ko màndal te doonte gisoo lam naan bu fekkee ba mu koy naan itam loolu wax dalalatul iltisaam loolu yi nag ci la ñuy tegtaloo ci sunu borom tabaaraka wa taala mooy mbindeefam yi nga xam ne ñëpp xam nañ ne fi ne ni rawatina borom xam-xam yëpp maase nañ ci ne adduna bii nii ak li am am na fu mu tàmbalee am na jamono yoo xam ne dara amut. xel nag nanguwut ne dara dara amut mu jékki-jékki am lu am te amut ku ci soppandiku loolu dañoo wax ne xel nanguwu ko mbir moo xam ne day dox ci yoon ba mu yàgg mu soppi ko dem ci weneen yoon te kenn jeexitalu ci loolu xel nanguwu ko borom xoox yi dañ ko misaal ci balance boo bu fekkee ne dañoo yemoo ñu jékki-jékki bee sut bee ëpp doole bii te dara soppandiku ci dara tegu ci dara jeexitalu ci loolu xel nanguwu ko kon dara amutoon jëkkee am lu am am na ku ko amal loolu mooy gàttalu te loolu am na xam-xam bu ñu koy jàngee boo xam ne mooy xam-xamu tawxiid te du lépp loo gisul rek amul borom xam-xam yi saxal nañ ne am na leer yi ngay gis ci guddi gi am na ci leer boo xam ni biddew yoo ko yebal yam yam bàyyi ko ci ñoom faatu nañ bu yàgg leer gi door a agsi ci noonu am na ci biddew yoo xam ne bañ yebalee seen leer ak yàgg na te ak seegut maanaam leer bi ak seegut ci nun nga xam ne yu baree bari ci bind gi boo seetloo yu am lay doon te nun gisuñu ko wala boog ba maanaam bàyyiwuñ ko xel loolu mën nañ ci yem foofu lu mel ne sim bii tam wax na ne ak ñàkk bu la yàlla nattoo ak ñàkk bul xalaat ci ñàkk gi nga ñàkk alal alali àdduna wala takun daa fikratin fi faqrika fa tukfi l hamma idan wa gammaka bu la yàlla nattoo ak ñàkk bul jël sa yitte yépp def ko ci xalaat ñàkk gi nga ñàkk ak lu tax ma ñàkk ak lu tax yàlla xañ na lii jàppal ne loolu day li gën rek ndax adduna lépp ab nattu la wa nabluukum bi sharri wal xayri ki am ab nattu ci la ne ki ñàkkit ab nattu ci la ne lépp nattu la te nattu am sax moo gën a metti nattu nattu ñàkk ndax ki am alal jël lu mu bari bari bis suñu borom dana ko taxawal laaj ko dërëm bu ci ne fu mu jóge ak nu mu ko fa jëlee fu mu ko dugal ak nu mu ko fa dugale xisaab bu metti boobu nag mën na caa fekk bañ a fekk xëy na ci ñàkk kon suñu borom ne yow bu la yàlla nattoo ñàkk di xalaat ci ñàkk yi nga ñàkk loolu bul ko def loolu des ci xalaat bugg na ci yi nga xam ne suñu bi daa wax ne kenn du ci xalaat it mooy tooñ guñ la tooñ aw zulmi shaxsin zalimin fa tuksira baynakuma xaqran wa gaydan fasbira nit bu la tooñee tooñ gu metti boo wéyee rek di ca xalaat da lay jural nga soxare ko wala nga añaane ko wala nga mere ko te loolu suñ nga jaxate waxam ne murid murid dëgg bul mer te bul jàpp mer mere ak jàpp mer ku koy def du ngeen jib murid loolu suñ nga jaxate waxam bu yàgg-yàgg suñ bi wax ne itam ne bokk na ci yi nga xam ne kenn waru cee xalaat mooy ay mébét yu bari ak dund gu yàgg ak jàpp ne yow dañ fi sax wala tudim fikraka fi tuuli l umr fa tatluba al jamaa wa dalika yadur li annahu yudayiu al umra kama yusawifu al mutia indahu ntama soo yaakaar ne dañ fi sax di xalaat rek di teg lu ne nga bëgg koo def ci sa dund loolu sëñ bi wax ne yooyu kenn wuru ci xalaat jëmee yooyu bul ci xalaat mukk xalaatal ci sëñ bi ñu ko ne wax rek xalaat yi nag fi ñu koy jeexale mooy dafay wuute léeg-léeg nit ki dana tàmbale ci mbir xalaate mu jox ko le- lii lii kii xalaate mu jox ko leneen moo tax suñu borom indil ñu natt nattuwaay boo xam ni ci ngay xamee sa xalaat jub na wala jubut te mooy sariya moo tax suñu borom ci alxuraan nit doomu aadama sawaab lay wax lu jub lu jub yowma yaqumu ruuxu walmalaikatu safan laa yatakallamuuna illa man adina lahu rrahmaanu wa qaala sawaaban doomu aadama lim li muy def lépp ak li muy wax lu jub la suñ borom nag moo xam dëgg moom dëgg moom suñ borom rek moo ko xam qawluhu lxaq walahu lmulk wallahu yaqulu lxaq suñ borom rek moo jago moo xam dëgg dëgg mooy mbir ma nam demee dëgg dëgg rek loolu yàlla kese moo ko moo ko jago ak gaayam yam ko xamal moo tax nag ginnaaw nag doomu aadama mënta xam jëmmi dëgg dëgg dëgg dëgg suñ borom indil ko nattuwaay muy sariya alquran nga xam ne xalaat yi nga am dañ ko ciy natt su dëppoo ak moom nga xam ne sa xalaat baax na su dëppuwut ak moom nga xam ne sa xalaat baaxut wassamaa rafaaha wa wadaa al mizan alla tatgaw fi l mizan qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubinun yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subul salaam muy dem ay yu bare bari loolu lay tegtale te itam yonente bi alayhi salatu wasalaam danaa wax ne xolub doomu aadama ñaaru ko seq malaayka moo xam da ci sotti seytaane soo xam ne ci sotti sa xel yi ci toq ci ay xalaat yenn yi malaaka moo ko ci sotti yenn yi seytaane moo ko ci sotti seytaane nag mën na laa indil xalaat boo xam ne day nuru lu jub ci yow te loola boo ko nattee ci alxuraan rek da nga xam jub na wala jubut moo tax sariya mooy nattukaay bi nga xam ne lépp ci lay natt bu la yàlla dafa lee ngay kuy jaamu yàlla masalan di gis léeg-léeg ay gént ki yëf lépp da ko natt rek ci alxuraan loo gis daal xoolal lam lay jural bu dee lu baax lu dëppoog li yàlla gërëm xamal ne loolee lu jóge fa suñu borom la bu dee sawaan ba xamal ne jógewul fa suñu borom lu dikk kon ci meññet yi lan la xalaat di jur xalaat li muy jur mooy ay xam-xam ak ay axwaal ay xaal xaal mooy melo ak tolluwaay ak jëf nag xam nga ne nit ki bu xamee xolam faw mu soppiku jë bëgg a jëfe lam xam loolu mooy xaal bi loolu nag mooy indi cër yi jëf ko te loolu boo mu tudd jëf loolu mooy gàttal gi kon dañuy wax ne fàttaliku ak jéem a xalaat jëfloo xalaat loolu moo jiitu li xalaat bi jur nag mooy xam-xam bi xam-xam boobee mooy soppi xol bi dugal ca xaalu nga bëgg a jëf ko boo ko bëggee jëf nag jëf gi nga koy jëf cër yi jëmmal gi nga koy jëmmal loolu mooy jëf gi kon ñeenti état bi ci la ci la jaar sëñ bi wax nañ ne xalaat li muy jur la ci jiitu mooy al yaqin yaqin la la jural yaxsulu bil fikri min al yaqini fi saatin waxidatin fi ddiini maa laysa yaxsulu lahu walaw abad jamia dahrihi bi gayrihi abad fa yatayassaru lahu fa yatayassaru alayhi diinu kama bihi nassa fatal makiinu fatal fatiinu boobu sëñ la foone wenn waxtu woo toog jëfandikoo sa xel ci màggug suñ borom gi ak ci sa borom ci sa borom ak ci sa jëmm itam ni ma ko waxee léegi rek xalaat sa bopp xalaat dund gii ma ne lan laa jëfagul ndax lii ma ne nii mooy dëgg gi moo dëppoog li sëriñ bi dëgg te yàlla gërëm ko wala boog ci leneen laa ne yooyu yëpp ay xalaat la xalaat boobu nag suñu wax ne nga def ko wenn waxtu di nga ci amee loo xam ni loolu ngaa jaamu yàlla sa dund yépp te doo ko ci am ba tax yaqin googu ak pas-pas bu wér ji ak pëstéef ak pas-pas bi ñu ci jëlee sëñ bi daa wax ne loolu mënul koo amee daanaka ci dund gépp boo ko doon wër rek te xalaatoo sëñ bi sax wax ne itam ne cosaanu dëddu dëddu la ko la la ko ji ci xol la ko ji ci xol xalaat lay doon waalam bi ann asla zuhdin wa wara taahudu lqalbi bi ixraaji lbidaa إذ فكرة الفتى تريه الحسنات حسنات مستبشرا كما تريه السيئات sëñ bi wax na ne itam képp koo xam ne bëgg na lu baax te bëgg la gën a kawe fa suñu borom faw mu jëfandikoo xalaatam wa hiya naatu kulli taalibin ula min rabbina arrahmani jalla wa ala leeral na itam ñenn ñu ne fa ñuy xalaate ak seen meññet mooy fa fa leen la leen xalaat bay jural wax na ne ñi nga xam ne dañoo dëddu adduna ñoom ci jeexuk adduna bi lañuy la ñuy gën a xalaate wa fikratu zuhaadi fii fanaai dunyahumu wa qillati lwafaayi li taalibiha tujibu zdiyaada nasaatihim wa zuhdihim rashaada mooy ñi nga xam ne dañoo gën a jëm ci dëddu la tax ñu jëm ci mooy seen xalaat ci adduna ñàkk solo adduna ci la ñuy gën di xalaat ak jeex gi nar a jeex ak it ñi ko yan woon ñi nga xam ne dañoo defoon adduna muy kër fa mujjee ñoom yooyu ca la ñuy xalaat mu jural leen adduna soof ci ñoom du leen safati dara ñu dëdd ko nag seen xalaat yépp ci loolu lay jëm mbir mu ñëw dañ cay gisee ñàkk solo adduna sëñ bi wax na itam ñi nga xam ne dañoo bari dañuy ay jaamukat yàlla nga xam ne toujours dañuy ja waxtu wu ne dañuy jaamu yàlla def ay jaamu yàlla yu bari ay jullee ki woor ak yu demee noonu ñooñu li cëpp seeni xalaat mi ngi gën a jëm ci tuyaaba ak li li suñ borom di fayee ñi koy jaamu loolu moo tax ñu gën a jëm foofu ndax bu fekkee da ngay xalaat ci suñu borom li muy fayee gaañi ba ci sax yi soo sowaane léeg-léeg nga gis ñaan goo xam ne naa ñaan gi boo ko defee di nga am nangam nga jël ñaan nga loolu mooy ubbaat yi ubbaat yi foofu la ñuy xalaatee mooy tuyaaba yeeg yi yàlla di fay gaañi ak mbir mu ne lañ cey fayee loolu moo leen di yitteel loolu nag mooy yokk seen cawarte ci jaamu yàlla yi moo tax mbir mu ne dañu bëgg a xam njariñ la waaye aarifuuna billahi yi nag ñi nga xam ne ñoo xam yàlla ñoom seen xalaat yépp ci xéewali suñu borom yi lañ koy jëmee wa fikratu l aarifi fi l alaayi wa nuamaai fatiri samaayi taziduhu mahabatan lil xaqi subhanahu rabban li kulli xalqi ñi nga xam ne dañoo xam yàlla dëgg-dëgg ñoom xéewali suñu borom yi ci la ñuy gën a jëmee seenum xalaat loolu da leen di yokk bëgg yàlla subhanahu wa taala ndax dañuy gis ne ñoom am gi nga am rek mooy xéewal gi njëkk te mënoon ngaa bañ a am di mënoon ngaa bañ a am am gi nga am nag mooy xéewal gi njëkk bi nga amee ba léegi rek bi nga juddoo ba léegi yàlla boole la ak sa waajur mu jigéen masalan mu bëgg la bëgg koo xam ni yaa ko gënal boppam te bëgg googu yàlla ko def ci sa waajur mu jigéen mu di la toppatoo te boo juddu woon te kenn bëggiwul la ni la sa yaay bëggee man ngaa faatu moom da ngay faatu sax nag yàlla boole laag jëmm joo xam ne la bëgg nga gënal ko boppam mu di la toppatoo ba nga màgg boo màggee sax bu la neexee nga jaar ci beneen yoon ba nga màgg itam yàlla dina defal ay tawfeex yu baree bari kenn ku ne ci loolu mën na ko seetlu ci dundam xéewal yi ko yàlla yi defal tawfeex yi muy am mbir yoo xam ni wóor na ko ne bu doon taxay boppam kese du ca mën a àgg loolu nit ki bu koy xalaat da koy jural mu bëgg yàlla bëgg gu tar nag mooy judd ci xolam te loolee mooy mooy mbir ma moo tax sëñ bi wax ne ñoom ñi xam yàlla meññet seen meññet dëgg-dëgg mi ngi watte ci garabu xalaat mooy àgg ca yàlla sës ci suñu borom jege suñu borom tabaraka wa taala samratuha li saaxibil irfaani wusuluhu li xadrati rahmaani ñu jeexal na kon ci sëriñ bi di gëm a xalaat ak ñu ko doon diglee xam nga ne sëñ Tuubaa ku fonk xalaat la woon li weesu rek mas na ko ci xame daana ko diglee itam digal na ko taalibe yépp ci dénkaan yu bari yu mu dénkaane da nga ko ci fekk tàmbale ko ca Masaalikul Jinaan wax na ne fa adimi nadara fi miraati fikrin maa al xalwati fi l awqaati na nga sax di xool ci seetub xalaat xalaat def ko seetu boo xam ne ci ngay xoolee sa bopp xool yaay kan ci lan nga ne ndax lii nga ne bëgg nga fe dee fekk na ci ndax li weesu jag na ndax fi mu ne yaa ngi tuub dellu ci suñu borom wala da nga topp sa bànneex loolu yi moo tax sëñ bi ne jëlal xalaat nga def ko seetu di ci xool sa bopp yadil lak al xaq hunaka yaa xalil li annahu sababu iqaani al xalil soo ko defee rek dëgg dana feeñ da nga gis dëgg da nga xam yow ci loo ne sëñ bi wax ne bu ñu yem ci loolu dee ko boole ak di wéet léeg-léeg ndax biir nit ñi léeg-léeg doo ci mën a xalaat nit yàlla yi dëgg-dëgg ñoo mën a nekk ci biir biir nit ñi seen xel di xalaat di gis suñ borom ci lépp waaye koo xam ni day doog a suuf wala suñu kalaas gi murit bu ndaw mënul loolu moo tax sëñ bi wax ne wa lazimi la usilata wa tafakkura na ngay wéet léeg-léeg di xalaat wa dikra wa salaata wa tadabbura ndax boo toogee rek bëgg a xalaat sa xel mën naa dem ci yeneen moo tax mën nga toog di tudd yàlla di jàng xasida wala nga jàng alquran wala nga def salaatu ala nabi gooman wala laa ilaha illallah wala astaghfirullah loolu ci xalaat lay dugg ndax buntu xalaat la ak julli ak seetantal yu demee noonu suñu wax ne waxtu moom bul ci neenal benn laa tuhum wa man ahmala al awqaata fi gayri taatin fa sawfa yulaaqi llaha fastaamilu fikra koo xam ni neenal na benn waxtu de bis dana ñëw mu dajeeg boromam subhanahu wa taala moo tax dee leen jëfandikoo si ay xalaat ci waxtu yi nga nar a neenal dee leen ci jëflu seen xel ci xalaat ci seen bopp ak li leen wër ak mbindee fi suñ borom yi ak yi ma njëkkoon a wax yépp rek sëñ bi danaa wax ne jihaadu nafsi bu ñu koy wax jihaadul akbar jihaad ji gën a rëy mooy jihaadu xol daan ne xol xam nga nan lay jihaadee mooy nga fexe ba xalaat yu bon yépp bañ caa rot di bañ a xalaat ci mboolem loo xam ne day yàq xol wala lu baaxut ak ñaaw ñokk yooyu yëpp nga fexe ba génn ko ci xol nga xam du du ca toq loolu soo fexe ba def ko rek xamal ne yow yaa yaa ngi ci al jihadul akbar ndax bu waa bu boobaa sa xol lu baax moo koy dëkkee te bu waa dana mujj lam ñu da koy wax moom lu baax loolu cir yi di ko jëf waaw loolu sëñ bi wax sëñ bi daana wax ne na ngeen xam ne gis bi nga xam ne moom la bët am ñoom la xol am xol day gis xol day gis ni bët yii di gisee xol moom malakut lay gis bët nag mulku lay gis mooy alam bi nga xam ne moom monde matériel bi nga xam ne mën si na ca teg la teg man làmb daj ko xol gis ko waaye xol nag mooy gis adduna ya nga xam ne mooy adduna yi pays suñu borom yi tabaraka wa taala daa di wax nag ne xam leen ne xol day fattu day tilim di wànnent di gumba ni muy tilimee mooy ngay xalaat ci loo xam ne amulu la njariñ loolu xamal ne yaa ngi koy tilimal yaa ngi koy fàtt itam soo dee xalaat nag ci loo xam ne dañ koo sib ci diine jàppal ne sa xol yaa ngi koy jural wànnent soo dee xalaat nag ci loo xam ne lu xaraam la moom loolu mooy mooy mooy rey xol mooy gumbaal xol loolu la sëñ waaw kon da ngay fexe ba sa xol bu ma xalaat mukk ci lu amul njariñ ak lu la amulul njariñ su ci naree jëm rek génne ko ca ndax loolu moo lay jural dégg nga ak pacte su dee xalaat ci luñ sib xam ne loolu wànnent lay jur ci xol nit nga xam ne bët yi day wànnent gumb nag ni mu amee ci bët yi noo lay amee ci xol te la ko cay jur mooy xalaat ci loo xam ne lu xaraam la Sëñ Tuubaa dana wax ne saa yoo xalaatee lu aju ci suñ borom bu ñu waxee xalaat ci suñu borom nag li fekk sa xel mi ngi dem ci yonante bi wala muy dem ci mbirum lislaam wala mbirum sëñ bi xamal ne yaa ngi ci xalaat ci suñu borom ba tey sëñ bi wax ne nit ki bu xalaatee lu aju ci suñu borom leer day bàyyi ko fa suñu borom tàbbi ci xolam tasaaroo nag ci biir xol bi daal di dem nag ba ca làmmiñ wa leer googee feeñ ci làmmiñ wi buy wax baat yooyu leer gi feeñ gi buy jëfit cër yi itam leer boobu da ci da ci feeñ leer jëf xalaat boobu moo tax xalaat am solo lool waaw moo tax sëñ bi daa ne seen xol na ngeen ko wooral la woor xol bu woor xol bu ni muy woore mooy day bàyyee xalaat ci lépp loo xam ne lu xaraam la bu mu xalaat ci lenn lu ñu sib bu mu xalaat lenn loo xam ne amul njariñ sax bu mu ci xalaat dara wax itam ne xikma day xawwe koo fa pays suñ borom ya di dal ci xoli gaa yi nga xam ne dañoo am xol yu gëm te laab te set waaye bu fi fekkee dara lu tilim day dëpp su fekkee ne gis na xol bi nag dara tilim tilim nekku ci mu toog su fi yàggee te benn tilim tilim fekk ko fi mu sax defar xol bi nag na mu koy defaree mooy mu ngi mel ni kër rek da koy defar ba mu jekk na mu koy defaree mooy dafay dëkkal tawxiid dëkkal sa niyatul xayri mooy yéene yi ñëpp aw yiw daal di leeral nag lan mooy tawxiid ne tawxiid de mooy moo leen manque-manque yi nga génne ko ci sa xol ndax yàlla manque-manque yooyu jégewu ko fenn ci sa xol la ne mooy kiiraay ji dox nga diggan diggante nga gis màggug suñu borom gi tabaaraka wa taala boo ko dindee rek jënloog màggug suñu borom gi tabaaraka wa taala daal ne niyatul xayri rek nan lañ ko defee mooy yéene yiw mooy da nga yéene yiw ñi baax yéene ko ña ña baaxul itam soo ko yéene ñi baax ñu fay la aw yiw mooy in axsantum axsantum li anfusikum hal jazaau l ixsaani illa l ixsaan soo ne yéene yiw ñi nga xam ne baaxuñu itam aw yiw rek ngay am ndax yiw woo bu demee du am fu mu fu mu fu mu dëkk te jëm na joojee day dir siwaat ci yow man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha sëñ bi teg ca ne loolu moo tax ñu naan wenn waxtu woo toog di xalaat moo moo gën jaamu yàlla ak at ndax xalaat yooyu day raxas xol bi def ci leer goo xam ni da koy jéggi dem ca làmmiñ wa defar ko dëkkal ci tudd yàlla su yàggee mu dëkkal mu dëkkal ca ba tey wax wax lu baax ak waxu yiw su làmmiñ wi jagee day mujj saa yu jaam bi ne yaa rabbi ñaan dara suñu borom ne ko yow sama jaam bi yow mi nga xam ne lu baax rek laa lay laa laa lay laa lay jox li yàlla ci yow rek laa lay jox loo bëgg ma defal la ko sëñ bi wax ne du yem foofu leer googu day dem ba dem ci cër yi moom it defar ko dëkkal ca waajib dëkkal ko ci waajib ak mandóob ak al mubaax al muslih mooy li war ak li ñu sopp ak li nga xam ne dagal na te di la gë- di la jariñ loolee nag bu ca saxee day mujj lépp nit ki nekk tata loo xam ni seytaane du ko mën a bëtt fenn dara lu di yàq du ko mën a bëtt fenn loolu moo tax suñu mën a wax ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan wax ko su wax ko iblis saa yoo xamee ne nag xol bi mi ngi xalaat ci lu dul tawxiid ak lu dul yéene yiw nga xam ne mi ngi ci li suñu borom tudde xuróoru dunya mi ngi ci lam ñu itam bu fekkee ne mi ngi wax te waxu yiw nekku ci wax aw yiw mi mi ngi nekk ci xuróoru dunya ba tey cër yi noonu itam daal koy jeexale falaa taxurrannakum alxayaatu dunia wala yaxurrannakum billahi alxaruur daal di wax ne topp ndigal day mooy joxe ak pal mooy tax nga mooy maye ak pal waaye moytu itam mooy tax duñ la folli moytu tere yi mooy tax duñ la folli te képp koo xam ne mi ngi wuti yàlla na xam ne maa ngi ànd ak moom loolu sëñ bi wax képp koo xam ne nag mi ngi wuti mi ngi nu wut si te nekk ci caaxaan na xam ne maa ngi moom sequnu dara sequnu dara fa man fa man tawajjaha ilayna bil xaqi raafaqnaahu wa man tawajjaha ilayna bil baatili xaalafnaahu képp ku nu wut si te ànd ak te nekk ci dëgg nu ànd ak moom képp ku nu wut si te nekk ci caaxaan nga xam ne sequnu dara kon loolu mooy gàttalu yi sëriñ bi daa dénkaane sëriñ bi itam wax na moom li ko xalaat jural wax na ca lu bare bare bare sëriñ bi wax na ne moom xalaatam yépp génnut suñu borom tabaaraka wa taala wax na ne fikri wa qawli wa amali ila albaari dikran wa shukran bi iqbaali wa idbaari sama xalaat yépp ak sama wax yépp ak sama jëf yépp ci sunu borom rek ci la jëm génn ko ci tudd ko ak sant ko kese rek ci anam yépp ci waxtu wu ne itam wax na ni itam ne wajjahtu lil haadi al alimi aqli wa fikrati wa huwa yuniiru naqli dama jëmale sama xalaat yépp ak sama xam-xam bépp te suñu borom tabaraka wa taala moo tax lahu tafakkuri wa sumti wa nadar wa li siwa aqliya saaqa ma xadar moo tax nag sëñ bi wax ne bi ma jëmalee sama xalaat yépp ci suñu borom moo tax suñu borom jubbanti samay xel samay xalaat jubal ko hada lisaani wa hada tafakkuri man qalami jaala fawqa askari wax ne suñu borom daa mujj jubal sama xalaat yépp jubal sama làmmiñ ba tax na sama xalima moo kawe armée ay soldaar yu bare bare yu ànd dib armée ne xalimaa ma ko kawe si sax danaa wax ne xalaatam day màbb ab armée armée bi gën a rëy soldaar sa bari ca ak seeni ngànnaay ab xalaatam ay xalaatam day màbb armée armée yooyu yëpp naajaani al waasiu fi tafakkuri wa fikri haasima haasimatun li askari wax sax wax na sax ne gàccaal na ab ab ab armée ay soldaar wax ne sax itam ne iblis day daw samay xalaat saaqa allainu li siwa daati alxafid yafiru min tafakkuri maa allafid iblis day daw samay xalaat sëñ sax wax na ne su ma toogee di xalaat rek ci yàlla ak ci jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala ak ci yonente bi iblis day jooy ngir amu nga amu metit ida qaratu aw jara tafakkuri farra lainu baiyan li fikri dafa ne ibli iblis dafa ragal samay xalaat jëfloo gi muy jëfloo samay xalaat ak la ciy juddoo iblis da koo ragal ndax da koy lakk suñu borom coom moo ko ji tiital يخوف الباقي العلي من فكر ابليس كالتخويف يوم العسكري دابا ne man samay xalaat benn bu ci nekk samay xalaat moo raw waxuma la genn kënu waaye soldat sépp buñ maasee ab armée ci boppam moo ko raw ci ci iblis na mu koy def moo tax moom mu ragal ma ragal samay xalaat mata qaraatu aw amaltu fikari sirtu lada iblisa fawqa al askari wax na ci yeneen yu bare bare wax na itam ne moom xalaat bokk na ci lim koy jural mooy bu toogee di xalaat mboolem kumpa yépp kiiraay yi doxoon diggante ma kumpa yépp suñu borom da koy muri benn ci ginnaaw benn di ko muri di muri di muri yépp mu jëndoo kumpa yépp ida tafakkartu badat li xuyabu wa man naxaw durriya turran xuyibu ida ida tafakkartu bada li man baham an al usuli wantafa an nirwaham wax na ci lu bare bare bare wax na ne noon yi suñ borom ni mu leen tàggate ni li tax yàlla tàggatal ko noonu yëpp mooy ci xalaatam rek ak i xalaat jëfloo gu mu jëfloo xalaatam ci suñu borom tabaaraka wa taala ci la ko yàlla déyaaleeg suñu borom ci ay xalaat maanaam xalaat bi moom mooy toog di settantal te amul toog di settantal ci màggu suñu borom gi loolu yi ci la ko yàlla tàggatale mbooleem noonu yëpp mbooleem ay xam-xam yu bari bari itam yoo xam ne romb na xel ci la ko amee naajeytuhu bi qalami wa fikri wa bihima liraada ahla sukri allamani alalimu ma an ilfikar xaaba wa innahu xayaatiya shakar maa ngi jéglu bu baax a baax di dogal ngant di rafetluwaat bu baax a baax liggéeyu muqaddimatul xidma nga xam ne ñoom ñooy sangi dayira yëpp ndax bërëb bi ñu ne di fi liggéeyal sëriñ bi te di ko taxawee taxawaay bu rafet wuutu fi mboolem mbokki taalibe yëpp ñoo ngi ñaan yàlla gën leen a dëgëral te dara bañ a gàllankoor seen liggéey ci daraja yi Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardaahu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Ahmadou ci waxtaan wu am solo wi yaakaar naa ne mboolem ñi nga xam ne ñi ngi doon teewlu jële nañ ci ay njariñ yoo xam ne dinañ ko mën a jariñoo seen diirug dund ma wax fii ba déwén waaye seen diirug dund ñoo ngi lay santaat bu baax te di la ñaanal sunu borom gën laa sàmm te dolli laa dëgëral ci barkeb sëriñ bi di fàttaliwaat ne moom mii kenn la ci ñi nga xam ne ñoo jiite alwafa bu daarul mooti ñoom itam ku ne xam na seeni taxawaay ci weer wu tedd wi foofee ci pàkkub sëriñ Tuubaa be di daarul mooti waxtaan wi nag li mu làmboo bari na lool waaye nga tënk ko ci anam goo xam ne yaakaar naa ne dina yomba dégg lool ci njëlbeen gi nga xamle lan mooy xalaat xamle ne mooy jëfandikoo xel xalaat mooy nga jëfandikoo sam xel xel nag bu ko yàlla joxee nit dafa bëgg mu di ko jëfandikoo di ko jëfandikoo nga xam le ne it xalaat mooy baabul anwaar wa miftaaxul ilm xalaat mooy buntub leer yi waaye mooy caabi xam-xam moo tax dañuy wax ne al aqlu nicmatun ilahiya wa tafkir faridatun islamiya xel xéewalug suñ borom la waaye di ca xalaat nag loolu farata la ci lislaam farata la ci ab jullit muy xalaat kon ci biir waxtaan wi ba tey nga leeral ahamiya bi nga xam ne xalaat am na ko muy solo si nga xam ne xalaat am na ko bokk na ci lii tegtale solaam maa lii wane solaam mooy sunu borom andi na ay ayatun quraaniya yu bare bari sunu borom andi na ay aaya yu bare bari ci alquran di ca digle ñuy xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci am njàngaleem lu bare bari lu aju ci xalaat nga nekk li ci xaddis boobu yi nga xam ne moo xewoon diggante Bilal ak sayidatuna Aïcha radiallahu anha ak la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ci aaya boobu di inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi alleyli wan nahar la ayatin li ulil albaab ba tey itam nga xam le majalatul fikr anam yi nga xam ne ci lan war a xalaat mu mel ni ñaari anam la muy mbiri adduna ak mbiri àllaaxira waaye nag nga xam le ne xalaat bi aju ci mbirum adduna moom taxut a jug waxtaan wi waaye xalaat bi aju ci mbirum sunu borom nga tënk ko ci mbirum diine mu mën a lënkaale mbirum àllaaxira wala ma mën a ëmbaale mbirum àllaaxira moo ñu tax a jug ci waxtaan wi waaye xalaat boobu nag nga xam ne mu aju ci mbirum adduna buñ seetloo nit ñi nin joxee maanaam nin yittewoo xalaatu mbirum adduna boobu bu fekkonte ne noonu lañ yittewoo xalaat mbirum sunu borom subhanahu wa taala kon lay léegi tey ñëpp doon ay ay ay ay aarif billah ndax mbirum adduna da ngay ñàkk dépasse rek ñàkk dépasse rek xanaa fa fanaane koo xalaat ba bët set da ngay ñàkk lu gën a néew ci àdduna sa som bu tuuti ci àdduna rek mën na laa réer nga fanaane koo xalaat fanaane koo jooy teg da ngay ñàkk rek jigéen joo xam ne rek ci misaal am na lu doxoon sa diggante moom nga ñàkk ko rek jural la xalaat yoo xam ne mën na mën naa xaw a yàq sa àdduna kon mu mel ni xalaat yooyu bu fekkonte ne dañ koo jëmale ci mbirum suñu borom kon léegi tey ñun ñëpp ñu yegg ñu yegg ci yàlla mbir yooyu nga xam ne nag ci lan war a xalaat te mooy li nga xam ne moom lañ doon waxtaane sëriñ bi tënk ko ci masaalikul jinaan ci bunt boobu yi nga xam ne mooy faslun fil fikr nga xam ne loolu day wane fonk goo xam ne sëriñ bi fonkoon na ko xalaat ak importance boo xam ne joxoon na ko ko ndax moo waral mu jagleel ko ab bunt boo xam ne da ciy jàngale lan mooy xalaat xalaat ak mbir yin war a xalaat waaye itam meññit yi nga xam ne mën nañ koo jëlee ci xalaat googi sëriñ bi leeral ci lu bare bare bari ci ngëneelul xalaat xam le ne xalaat benn waxtu benn waxtu rek nga toog ko di xalaat sa digg ak sa boroom di xalaat ci sa bopp di xalaat ci mbir yi nga xam ne lu lay jariñ la moo kawe jaamu yàlla kat wa axbaru bi fawqi dikri saa ibadata sanati ibadata sanati lazim taa ba tey itam mu wax ne wa axbaru bi annahu afdalu min ibadati dëhri bila xulfin yaayn nee na xalaat di xalaat nit ki di xalaat ci diggam ak boroomam di xalaat ci yi nga xam ne moom lañ war a xalaat te ñëw na ci léegi dinañ ci ñëw ci tënk incha allah loolu moo kawee jaamu yàlla diiru jamonoom jaamu yàlla diiru jamono xalaat yooyu moo ko ëpp solo moo ko gën a kawe waaye ci tënk nga xam le ne yin war a xalaat la ca la ca war a jiitu mooy xalaat kiimaan yi nga xam ne moom la sunu boroom moom la sunu boroom dëxëñ ci asamaan yi ak suuf yi nga leeral ci yu bare bari yoo xam ne bu ko nit ñi doon xalaat dina am lu mu dolli lu rëy ci seen pas-pasu imaan waaye itam nga xam le ne loolu itam sëriñ bi ni na ko ci façon fil fikri ci masaalikul jinaan xam le ne warees na caa xalaat muy xalaat ci xéewal yàlla yi xéewal yi la yàlla defal xam nga doomu aadama xéewal yi ko yàlla defal dafa bari ba ni mu ko waxee bu ko doon lim sax mënu ko lim wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha xéewal yooyu nga xam ne du jeex nga tudd ci yu bare bare bari nga xam ne nelaw rek ci misaal boo bëggoon a nelaw rek tëdd nelaw loolu xéewal gu ko gën a rëy amut naka noonu boo bëggeen wax jékki-jékki rek di wax xéewal gu ko gën a rëy amut ak yeneen ak yeneen ci xéewal yàlla yu waaye xalaat ci yoolu sunu borom subhaanahu wa taala yool bi nga xam ne moom la sunu borom di ñi nga xam ne ñoo koy topp lu mel ni aljanna nga di ci xalaat ak xéwale ca nekk nga xam ne du jeex lu la soob ma nga fa lahum maa yashaa'uuna fiha te it wala doy naa mazid mazid mazid googu moom moom tuwarkal la nga xam ne mooy jàkkaarloog jëm ñu sun borom subhanahu wa taala lilladina ahsanul xusna wa ziyaada kon loolu di ca xalaat dina la gën a sawarloo ci jaamu yàlla ngir fexe dugg ca xéwal yooyu ëllëg waaye di xalaat ci mbugal mi nga xam ne moom la sunu borom dikk moom la tëkkoo ñi nga xam ne ñoo koy moy nga xam ne mooy sawara an naaru waadaha allahu alladina kafaru wa bisa almasir sawara soo si nga xam ne moom la yàlla tëkkoo ñi nga xam ne ñoo ko weddi ak ñi nga xam ne ñoo ko daan mooy nga di ca xalaat loolu dina tax nga di ko moytu ngay moytu lu lay tax a dugg sawara ndax dugg sawara moom wala ayaadu billah minit ba gën a néew sax jullit bi bu xamoon tàngaayu sawara ak ñettuwaay ba dina fexe ba di daw mboolem loo xam ne lu ko cay musal lay doon lu ko cay muccal lay doon bokk na it ci yoo xam ne warees na caa xalaat te sëriñ bi indi ko ci biir waxtaan wi xalaat ci sutura si nga xam ne moom la suñu borom defal loolu it lu ama am solo la xam ngeen ne nit nit saa yu wéeteeg boppam rek xam mooy kan saa yu wéeteeg sa bopp xam yaay kan bëri na yoo xam ne yàlla nga la ci suturaal bu ko feeñaloon rek nga weeru bu ko feeñaloon rek sa adduna yàqu sutura soo si la yàlla defal nag nga di ko xalaat loolu dina tax nga am kersa ci sa digg sa borom am kersay du ko mooy xam ne yaa ngi koy mooy saa yi nekk waaye mu ngi suturaal kon sutura suñ borom di ca xalaat lu ama am solo la ba tey itam ci majaalaatul fikr anam yi nga xam ne warees na caa xalaat wala anas anam yi nga xam ne warees na caa jëme xalaat nga lim ci yu bare bari yoo xam ne dañuy tënk rek waaye am na it mbir yoo xam ne léeg-léeg xalaatu nit di ca dem te wareesu caa xalaat ndax dañuy tere ku ca xalaat ndax xalaat ca lor la bokk na ci yooyu xalaat ci sa ñàkk bu fekkee ne dangaa ñàkk ngay xalaat ñàkk gi nga ñàkk boo xëyee doo ndékki wala doo am doo ndékkee doo am dépense man daal ñàkk gi lu tax yàlla teg ma ko loolu waru nga waroo ciy xalaat waroo ciy xalaat ndax ñàkk gi da ngay bàyyi xel ne am natt la boo xam ne suñ borom dala koo teg te itam mën nga cee fàggoo ngëneel loo xam ne wu rëy rëy la wu màgg màgg la kon ak ñàkk kenn du ci xalaat waaye tamit nit koo xam ne dalay tooñ wala mu tooñ la tooñ tooñ tooñ bu rëy tooñ googu mu la tooñ bu cay xalaat ndax saa yu cay xalaat rek ak bañeel day gën a dox sa diggan moom kon tooñ yooyu dee ko dee ko jéem a fàtte bañ ci ban bañ di ca xalaat waaye tamit nit warul di xalaat ba tey ci gudd fan maanaam jàpp ne yow da ngaa war a gudd fan loolu boo ko defee rek say mbébét day bari yow boo moytuwul bala ngaa tala jaamu yàlla màggat wala bala ngaa tala jaamu yàlla génn àdduna moo tax ci tënk sëriñ bi leeral na ni ko sëriñ Tuuba leerale ci masaalikul jinaan ci mbir yi nga xam ne moom lañ war a xalaat ak yi mbir yi ñu xalaat yi ñu war a xalaat bokk na ca asamaan yi ak suuf yi ak biddiw yi ak jant bi ak weer wi ak garab yi ak ndox ndox mi ak sawara si ak doj yi ak guddi gi ak bëccëg gi yooyu yëpp rek loolu luñ ci taxawoon rek da ngay xam ne xalaat ci lu mën a dolli nit ci imaan la lu mën a dolli nit ci ngëm yàlla la moo tax imaan mënta dëggoo mukk ci lu dul xalaat walaysa tasdiqun wala imaanu bihi bu aynal fikri yaa ixwaanu kon imaan balaa mën a dëggu nit ki balaa ngëm yàllaama dëggu dëgg dëgg dëgg faaw day xalaat day xalaat xalaat boobu nag mooy yooyu ñu tudd nga xalaat ci bu baax sa digg ak sa borom subhanahu wa taala waaye yi nga xam ne ne bu dee ci xalaat te lim ko léegi yooyu itam nga di ko wattandiku moo tax wa afdalul jihaadi manawal fikri min kulli maa lam yaani kulla dahri loolu la suñ tuwaa nee na jihaad bi gën ci jihaad yi mooy nga tere sab xalaat ci lépp loo xam ne lu amul njariñ la ngay wattandi koo xalaat ci lépp lu amul njariñ loolu mooy jihaad bi gën ci jihaad yi ci tënk nga ñëw ci meññiti xalaat xam le ne xalaat am na ay njariñ yu baree baree bari yoo xam ne ki koy def dina ko ca jëlee bokk na ci meññit yooyu yi nga xam ne xalaat am na ko xalaat dina tax pas-pasu nit ki gëm pas-pasu gëmum dëgër ci diggam ak boroomam subhaanahu wa taala waaye tamit xalaat yooyu dina ko may yaqiin yaqiin muy ak wóolu gu dëgër ci diggam ak boroomam moo tax abiyaat yooyu sëriñ bi tëje bunt boobu daf ko mujj ne wa gayriha kal leyli wan nahaari tanal yaqiin al qalbi bil anwaari kon xalaat bokk na ci meññit yi nga xam ne duñ ko ci mën a jële mooy dina la may yaqiin waaye tamit dina def ay leer ci sa xol ci biir loolu itam nga leeral ni ko sëriñ Tuuba leerale ci gaay nit yàlla yi ni nga xam ne ni la seeni xalaat wuute ñu dëddu àdduna ak aarif billahi yi nga leeral ci yu bare bari ba ci aarifu yi nga xam ne ne ñoom dañuy xalaat ci xéwal yàlla yi di xalaat ci xéwal yàlla yi ndax loolu dafa am lu muy dolli ci ñoom lu rëy rëy waaye itam nga xam le ne mbooleem yooyu yi nga xam ne lim nañ ko doomu aadama war cee xalaat nga xam ne ay mbindeef lañu ci yooyu rek la nit ci war a yam wala am na ñoo xam ne buñ ca yëmul rek mën na leen a jural jafe-jafe loolu liñ ci jubloo junj mooy li sëriñ bi di tere ne bul di xalaat mukk ci jëmmi suñ borom ji waaye del xalaat ci mbindeefam yi ci mbindeefam yi wal tusbitil fikrata fi lxalaayiqi baada taallumika laa fi lxaaliqi nee na na nga na nga saxal say xalaat na nga saxal sab xalaat ci mbindeefi suñ borom yi waaye nag jëmmi suñ borom ji moom bu ciy jëmale say xalaat kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la waaye itam ñi nga xam ne warees na caa xalaat ñu tudd ca nag boo xam ne man moo ma ci gën a marqué muy jëmmi sëriñ bi ci boppam nee nga sëriñ bi lim na yi war a xalaat waaye boolewu ci bii noonu la ko waxee waaye boolewu ci bii te mooy xalaat ci jëmmam ji moom sëriñ bi sëriñ Tuubaa xalaat ci jëmmam ji lu ama am solo la te itam mbooleem yooyu nga xam ne dafa bokk ci samaraatul fikra samaraatul fikri yooyu nga xam ne da cee bokk maanaam mu ci lenn loo xam ne ëpp na solo wala ëpp na solo xalaat ci jëmmi sëriñ bi maanaam li ma bëgg a wax mooy booy xalaat ci jëmmi sëriñ bi mbooleem yooyu yi nga xam ne moom nga ciy jëlee dañ ca jëlee sax lu ko ëpp solo xalaat ci sëriñ bi ci ak jaamu yàllaam sëriñ bi ay julleem rek boo ci doon xalaat xam ne julli na ba julli ci géej nga xam ne kon dangay day mel ni moom dundam yépp daf koo jeexal ci julli nga xalaat ci ay mbindam ak mbindam mu mel ni kon dundam yépp daf koo jeexal ci ci bind nga xalaat ci xam-xamam mu mel ni kon dundam yépp daf koo jeexal ci sàkku xam-xam nga xalaat ci digganteem ak ay noonam nga xam ne daanaka boo seetee boo xaajee genn wàllu dundam ci loxoy noon yi la ko nekk mbaa sax li ëpp ci ak dundam ci loxoy noon yi la ko nekk waaye tamit liggéey bu rëy bii nga xam ne liggéey na ko ci lislaam nga xam ne kenn dootu ko fàtte ñëpp ciy jariñu ba faw sëriñ bi moom ñëpp koy jariñu ci liggéeyam moo xam yëg nga ko yaa ngi ciy jariñu ci yëpp wala yëgoo ko waaye ñëpp ciy jariñu loolu boo ci dee xalaat danga naan jëf ju rëy ji ndax xaj na ci diiru dund gu gàtt koo gi ci zahir yaakaar naa juróom-ñett fukki at ak ñeent wala matul loolu dund dund googu loolu loolu ndax jëf yu jëf yu rëy yu toll yi nga xam ne moo sooy adduna bépp njariñ li ci li ñëpp di jariñoo ndax xaj na ci dund gu gàtte noonu waaye tamit nga xam ne nag lu am solo ne meññit mi gën a rëy wala meññit mi jiitu ci li ñuy jariñoo ci xalaat ci jëmmi sëriñ bi mooy xam ne diineem jooji mu jàppoon rek muy diine xam ne diine jooju mu sëriñ bi jàppoon di diine di diine yu islaam diine jooju rek mooy mooy diine kon ci biir loolu itam nga xam ne ne sëriñ bi ci boppam diggam ak xalaat diggante sëriñ Tuuba ak xalaat nga xam ne léppam xalaat la ci diggam ak boromam subhaanahu wa taala léppam daf koo jëme woon ci xalaat ci digganteem ak boromam waaye xalaat yooyu tamit daan ko jural njariñ yoo xam ne mu su ko takk koo xam ne moom boo toogee di xalaat rek suñ borom ubbi la mbooleem yu fàddu yi ngay jàkkaarloog moom loolu lu ko gën a rëy amul waaye itam sëriñ bi ni nga xamee ne ni la daan soññee taalibe yi ni daan soññee ci ñuy xalaat nga xam ne ci biir masaalikul jinaan rek façon fil fikr indi na ci yu bare bari yoo xam ne da ciy soññee ci ñu xalaat ci ñuy xalaat di xam ne ne xalaat dafa mel ni ab seetu boo xam ne danga koo teg ci sa kanam danga koo teg ci sa kanam nga xam ne danga ciy mën a gisee say rafet rafet di ca bég di gën a góorgóorlu ci lu baax waaye nga ciy gisee it say ñaawteef di ca am lu la naqari waaye di ko di ko jéem a di ko jéem a wattandiku moo tax boo demee ci tér téeram boobu di maxaalikul miraan ma ngi cee xam le ne nit ki wër sa tëdd mukk ci lal lu dul ne toog lu dul ne maanaam toog na as waxtu wala tëdd na as waxtu woo xam ne day xalaat lan la yem boo def ci bëccëg gi bu ko defee la cay lu baax mu jéem koo wéyal la cay la cay ab safaan it mu tuub ko taman caa dellu waaye tam nit wër sa xëy mukk te toogul as liir wala mu tëdd as liir xalaat lan la fanaane man bii ci yan laa fanaan ndax lu baax la bu dee lu baax nga continuer ca góorgóorlu ca bu baax bu dee ab safaan itam nga di ko wattandiku sa kem kàttan mu xam ne it ne sëriñ bi dafa misaal ab xol ci bët maanaam dafa mel ni xol li muy gisee moom ni bët di gisee ñoo yam xam ngeen ne bët léeg-léeg poussière da koy dugg mu fattu am am suuf su ci dugg mu fattu léeg-léeg it nga gis ne mën naa wànneen léeg-léeg nga gis ne mën naa gumba mën naa gumba ab xol it noonu la mel mu xam le ne nit ki bu dee xalaat ci loo xam ne amalu ko njariñ nit ki bu dee xalaat ci lu ci lu amul njariñ loola day fatt gis-gisu xolam day fatt gis-gisu xolam nga xam ne ñi nga xamee ne sa bët bu fatt woon noonu ngay amee problème rek problème bu rëy bu gën a rëy boobu moom ngay am bu sa xol bu sa xol fattoo kon loolu bu ma tawatandiku la xalaat ci lu amul njariñ day fatt sa gis-gisu xol bu dee da ngay xalaat ci li ñu sib nag loolu day wànneen day wànneen loo sab xol sa bët say bët bu wànnee noonu rek tu xeetu tuufaay bu nekk di nga ko jéem a wut ngir wànneen googu wér waaye noonu ngay wattandikoo wànneenu bët nu ko raw noonu nga war a wattandikoo wànneenu xol moo gën a moo gën a metti sax yaakaar naa ne kon wànneenu xol li koy waral mooy xalaat ci lu ñu sib beneen bi ci topp di xol bu gumba mu xam ne it ne li koy waral mooy xalaat ci lu xaraam booy xalaat ci lu xaraam loola day day day gumbaal sa xol xol bu gumba nag yàlla nañu ci yàlla musal ñi nga xam ne seeni xol dafa gumba ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy tàbbi ci kàmbuk sawara wal iyaazu billah kon mel na ni waxtaan wi liñ ci mënoon a jàngat bari na lool waaye dañuy daaneel foofu di santaat Serigne Ahmadu bu baax ci jàpp ndal gi waaye di ko sant it bu baax a baax ci mboolem yi nga xam ne toggoo na ko ci coona jóge Daarul Muxti ba fii ngir wéyal ndigal li waaye tamit ngir jooxe liggéey bi nga xam ne moom la waa muxaddamatul xidma di amal fii ci jumaa ji ngoon gu nekk ci mbooleem bisi weeru koor yi loolu it ñu ngi ko ciy santaat bu baax te di ko ñaanal sunu boroom gën a guddal aw fanam te wéral ko yokk ab xam-xamam te barkel ko ñun ñi doon déglu itam sunu boroom defal ñu ak dégg akuk topp akuk jariñu